عليك صلاة الله ثم السلام فطرها

وزوليا sai ya gani mu digan da can dai sai mun mu bai na kai na Yes, mamma karama bajiya cuta sai mama na hakikalin sirrin shehu waliya sai ya dafati ya cuta a da bukatuna a yanzu go na gane zahirin barahama da badini yana cikin fati ya cota sun mama na hakikanin sirrin shi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 ilaha illallah dawudu dawudu kai ne Allah na so to waye da jiwa ne ba kai ba farha ba la ilaha illallah la ilaha illallah ya lawo to maulana shugaba uban bayra idan ka haɗa sai dai hu ya zamto hu in ka duba hutu za ka gane ba ma la ilaha illallah la ilaha illallah masoya na ku duba ka sani da kai kama da barhama rubuce mani idai gama da barhama domin kuwa ke karta shi shehu barhama sëriñ Adja kaa jël waxtaan bi kaa jël seen naan bàyyi la seen lépp bàyyi la mu ne la Adja traduire li ñu wax nga ne. mu ne dañuy zikkal ñu ne seen lépp bàyyi la seen lekk bàyyi la bu ñuy dox bàyyi la bu ñu taxawee bàyyi kon nag jërëjëf bàyyi nan nga def bàyyi ñëpp radiyallahu anhu. <laughs> macha allah. sëriñ Adja bismillah. voilà. ngi sant yàlla bu baax di nuyu moom dañoo am gan bu màgg gan goo xam ne mën naa wax ne kenn la ci soldaari bàyyi. ñëwoon muy daal Fatiha ñi nga xam ne gis la ndax nga xam ne mooy doomu bàyyi bi nga xam ne ñëpp xam nañ ko ci Niger ci coota te xam ne tey mën na bàyyi ko ñu naan ko rek moom lañ ko tuddee moom mooy yaayam tey ngeen gis magam ñoo fi ziyaare ko ndax ko indi Cheikh Omar Chérif nga xam ne tey waxuma la Sénégal passé ñëw ba ci rakkam mu ñëw ziyaare ko xam ne na kon kii du nit caaxaan moo tax ñu koy euh, wax marhaban bikum moom ak ñi mu àndal fii ci Medina Baye Medina namoon nañ ko ñu ngi koy xoolee ba ci baayam Cheikh Aboubacar Coota ñu ngi koy xoolee ba ci yaayam Sayyidatuna Ummul Xayri al-Xaadimatul Qur'aan wal mujaahida fi tarbiyati abnaa'i ummatil ànd ak ay ay délégation yu jugee Nigéria yu jugee Ghana ak yu jugee Niger dara indiwaleen fi nag lu dul ñëw eh, ci madinatu Cheikh al Islam Alhaji Ibrahim Niass ngir ñëw ziyaare ko su ngeen bi ñëwee ba léegi mën na une semaine waaye jëlee dëkk bi macha allah fu mu toll rek moom baati laa ilaha illa allah leen bëgg a dégg ci noppam moo tax nag ñu ngi ndokkeel baraam université média mooy télévision bu njëkk a jógee Dakar ñëw ne tey balaa jël ziyaara bi dina ñëw jël si ko kon ñu ngi lay ndokkeel di ndokkeel képp koo xam ne rek ñu ngi seetaan euh, bi di ko seetaan si YouTube bi loolu nga leen di dégg awsa wala di dégg arab angale kon ñu jox leen rek nuyoo ndax xam naa ne temps bi pour dem ziar bi jot na seedaa ñu leen nuyu bu baax ñu lay tatagal si sa dëkk maam ñu lay ndokkeel ndax ànd naa yow Nigéria ñetti weer yoo xam ne ni ak bëccëg yëpp yëpp da nga koy da nga di jubal nit ñi di wan ni kan mooy loolu moo tax man ma bëgg la ba léegi moo tax boo ñëwee ci dëkk bi tamit faw ñu ñëw toog si yow ndokkeel la ziyaare la ñaan yàlla képp koo xam ne dafa ànd ak yow bépp yaakaar bu am yan na ko yàlla may si barke maam Cheikh Ibrahima soxna ko fay indi yow fii ko yàlla woon waaye képp ku la soxla te ñëwul sax yan na ko yàlla faj si barke yoon wi nga xam ne moom nga ñëw ñu ngi ñaanal suñu xalifa bi yàlla may ko wér saafara ko delloo si ko si jàmm mboolem doomi bàyyi waaye ñu ñaanal suñu bàjj si daaw mu xëy yàlla may ko wér sàmm ko sàmmal ko njabootam barke Baye Niass barke bés bi nga xam ne mooy ziara xam ne moom lañ moom la ñu defal Baye ñu ngi ñaan loolu yal na ko yàlla euh, def léegi dafa chérif ñu jógee waxtaan nañu ñaanal nañu xam naa ci kanam tuuti danañ ko seetaan si Barham TV bu baax di sant di ngi nuyu suñu jigéen di Seyda Maani moom Mawlana Cheikh Hadji Abdoulaye Ibrahim Niass moom gis nga ñu ngi ñëw sees mbokkam sees magam pour ziyaare si ko loolu bu firndeel dara rek dafa mel ni ñu xam ne Seyda Fatiha si yoonu moo tax adduna yëpp ñu ngi ñëw di ko ziyaare si ay nijaayam ñu ngi ñëw di ko ziyaare si ay magam ñu ngi ñëw di ko ziyaare si waaye ay rakkam ziare si loolu li ko waral rek moom mooy li nga xam ne moom daf koy def muy liggéey liggéey bi dara lu liggéeyal bàyyi ci bàyyi ci loolu la nekkoon mbooleem doomu bàyyi ci loolu lañ nekk moom ci la nekk ñu ko ñaanal yàlla yàlla ko yàlla doon tawfiq ko loolu ko ak ñu àndal ba lépp loo xam ne daf koo bëgg a def rek kan mooy wax ci awsa kuy wax ci awsa toog nan baax lokacin bismillah والصلاة والسلام على سيد الفاتح الكاتب وعلى آله صلاة تعرفنا بهدية يموى منا godiya da wannan ziyara da muka kawo ban kasa ta kaula bisa jagorancin shugaba mai kamar da ya ci wata mace ce mai kamar maza ko wace ta wuce mazaje wanda dukkan aikin da shehu ibrahim ya dora ya bari to sai ya dafa ya tashi wanda ci ya shehu da jikokin shaida ne a irin zirga-zirgar take yi wanda duka wannan zirga-zirgar da take yi sun sani kuma sun san irin kokarinta da take kuma har yau ta ɗebo mu bisa jagoranci alhassanu kuma ya karu ta samu sauran sai da aka zo ka zagon kasa to har da dai cikin karamin lokaci na faɗa cewa abin shi mu shaida har gaban Allah za mata shaida ta dora ni akan kuma yau ga a kasar Kaula muna ga ƴaƴan shehu da jikokin shehu cewa ko da za su kwanta su bacci sai kadai za ta gudanar faila da alfarman manzan Allah saboda haka muna godiya da zuwa mu wannan kasa muna ƙara roƙo 'ya'yan shehu jinki shehu muridai akan su mata addu'a Allah ya ƙara mata ƙwarin gwiwa mu kuma muna roƙon Allah kar ya kiyaye mu saba mata wanda za mu ci gaba da dafa mata iya tsawon rayuwar mu cikin gudanar da wannan faila mai albarka shi kuma Alhaji Salisu da ya saka dukiyarsa wajen gudanar da wannan abu muna roƙon 'ya'yan shehu da jikokin shehu su masa addu'a Allah ya ƙara yalwata arziki ya zama sai ya ɗauki wata rana mutum dubu girman sai da fatiya godiya kuma ƴaƴan shehu da jikokin shehu kuma muna roƙon cewa wannan abu ba mu san da shi ba na tara wannan dukiya da ake yi wata shekara mu ƙara zuwa kuma mu ma mu tawo da dukiyar wanda dama sai da fatiya aikin ta bayan ta baka Allah ta baka dukiya don Allah ya ba mu ƙara zuwa wannan ƙasa wata shekara sai mu mun zo tamu hidima Allah ya farmata Allah ya ƙara mata ƙwarin gwiwa Allah ya farmata mu da shekara suñ sunata mi ni yaa mi des di doomi Pape Mahmoud moom tamit moom rek la Seyda Fatia rek la suñu suñu jëbaat itamasikan sewli ziyaare ci boppam di leen nuyu bu baax di leen ñaanal ci moom ci moom ci doomu kër la bi moom la waaye moom tamit ci ñuy teru waxtaan bi waxtaan bi waaw jox si daal mu ñaan rek benn waxtaan waaw benn waxtaan bu bëgg rek ci olof mbaa arab sax moom rek laa bëgg ganam parce que moom moo tax yi am su fekkee ñëwul même suñ defee lu nekk buñ amuñ ku ñëw jël comme télé international comme moom moo ko indi ci ñun encore moom yàgg nañ ñu ngi ànd ñu dem Nigéria ñu def tournée Niger ci boppam dana ñëw ñu tournée ak moom moom ku bugg fayda bàyyi la encore ku bugg a la moo tax suma affaire neex ko moo tax fu dégg maa ngi fi rek il faut mu ñëw fekk ma ñu ngi koy garam di ko sant mbokk bu leen la yàlla yàlla leen boole dafa baax mm-hmm. xol bi baax mm-hmm. bugg boppam mm-hmm. nu ci boppam la bugg wallaay moo tax ñu ngi koy garam ak suma rakk bi Sayda Mouhani doomi xalifa Baye mooy Cheikh Abdoulaye Niass maa ngi koy garam toujours ñu ngi fii set baay yëpp su ma ñëwee ba léegi tooguñ noppalu maa ngi leen garam bu baax yàlla saxal la fi yàlla def sa fayda bi incha allah bi yàlla yokk la sutura yàlla sa loxo rek yàlla yàlla defal bi lu barke bàññe sa maam tax ngay xaj ma yàlla ubbi la gën laa fataxa taamma comme sa bi fateexa la yàlla nekk fatku taamma di jaay rasulullah sallallahu alayhi wa sallam di jaay abul abbas radiallahu anhu di jaay cheikh ibrahim nis radiallahu anhu di barakati hadar yowma ziyara mubaraka incha allah képp ku fi indi soxla rek yal na ko yàlla faj ci barke ci bàyyi ci barke alquran ci barke ki tax ñu wàccee ko ci barke ki ñu ko wàccee yaa rabbi yaa rabbi aywa bismillah amin amin آمين يس آمين يس آمين يس آمين يس آمين يس آمين يس آمين يس آمين يس آمين يس آمين يس آمين عليه الصلاة آمين بركة الله يا همة الشيخ عمرنا بهذا آمين بداية عبد الله عبد الزاكي آمين رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين الحمد لله الحمد لله عليك صلاة الله ثم السلام فطرها مجد عاشق